maa ngi leen di ziyaara ci bis bu tëdd bii nu bokk daje rawatina weeru tëdd wi nu bokk nekk bokk yi sama jëwriñ moo war a jël kàddu toogal Serigne Touba ci ndakaaru ak li ko wër xanaa kay nun ñii teew fii di ay murit na ñëpp jàkkaarlu géej gii ni ko tey la woon de géej gi la Serigne Touba sànni woon dërëm ci géej gi dama ne mbokki taalibe ba yàlla bindee géej gi ak léegi gis nanu xew-xew bu ne xew na ci géej waaye sànni sab der ci géej ngir yàlla kenn rekk ko mas a def muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulullahi ah mbokk yi jërëjëfe Serigne Touba. dégguma leen de jërëjëfe Serigne Touba dama ne jërëjëfe Serigne Touba yàlla sunu borom xam na ni jaamu bi yàlla pire moo jëloon derem bi sànni ko ci ndox mi julli waxtu yàlla wi kon kooku mooy sunu yaakaar tey mooy sunu yaakaar ëllëg sunu carte kenn ko moom muy Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulullahi jërë ngeen jëf maa ngi ubbil nag sama jëwriñ alaaji Mbàkke yu fay na ñëpp ne yàlla na fi yàgg te mu ànd ak wér jumaa jee di Masaalikul Jinaan su àggee ñun ñëpp ñu am ngërëmal Serigne Touba kon nañ ni Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te mu ak wér kon na gaañe yéen ñëpp déglu leen suñu jëwriñ ki nga xamante ni ay bëccëgam ay tisbaaram ak takkusaanam yëpp guddeem ak yëpp jox na ko Cheikhul Khadim ba jumaa ji àgg fële kon nag japp leen ni la Serigne Mountakha waxoon ñëw na neewoon na suufus Ndakaaru am na lu mu bëgg a te mënu koo wax man ni maa koy waxal suuf si naqar wu mu amoon bi Serigne Touba ñëwee ñaari guddi Ndakaaru am na mbégte mu ni toll bi du faree jumaay Masaalikul Jinaan teg ci kawam